maa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu population Nianing yëpp di nuyu aussi le chef de village de Nianing di nuyu jeunesse Nianing yëpp mais di nuyu magu Nianing yëpp tey dañoo ànd ak mbégte ak kontante moo tax ñu ñëw fii tey ànd ak délégation bu mag bii maa ngi ñu ngi jégalu wax bi xaw na bari mais mënul ñàkk lu tax mënul ñàkk mooy que su ngeen gisee délégation bi délégation bu riche la su ma demee ba déplacé le coordonnateur départemental de Mbour c'est parce que dama bëgg xamal waa Nianing mais surtout ASC Deggo dama kontaan si yéen dañoo ñëw aussi pour remercier leen remercier leen si si lan mooy élection yi nga xamante ne génn nañ si ñu gis ñaniñ def si lu am importance Ibra Diack ñu ngi lay nuy bu baax di la gërëm di la sant ndaxte tey yaa nekk si délégation bi mais yaa représenté ñaniñ te ku ne développement Malicounda munoo si génne ñaniñ moo tax ñun ñu def délégation bi ñu xamal leen ne li ngeen doon liggéey si élection yi tey ñun am na si yëg-yëg mais Bachir Diomaye fay Diakhar Faye am na si yëg-yëg mais Ousmane Sonko am na si yëg-yëg ndaxte coordonnateur départemental su fi taxawee euh, le coordonnateur communal taxaw fi mooy Bachir a fi Sonko ngi fi te ñun fépp fu ñu taxaw tey projet bi la defant défendre di leen ASC Deggo bi ñu ñëwee kër ñu nekk ay jeunes ñu bokkoon ci combat bi dama leen ne nu mu metti metti wala lu ma xat-xat dinaa jël seen euh, parrainage bi te jour boobu incha allah dinaa ndax délégation mag ñëw usile kon jeunesse su Nianing jeunesse su Malicounda mais jeunesse su département de Mbour ñu ngi soog a dugg nag ci changement dina xaw a metti tuuti. mais dama leen di ñaan ñu am tuuti patience dinañu ànd ak Bachir Diomaye Diakhar Faye ànd ak président Sonko change Sénégal Malicounda dinañ ko changé mais département de Mbour dinañ ko changé kon li ma leen di wax rek ñu ngi leen di encouragé yéen ASC ko te lépp li nga xamante ne amaat ngeen ko ngeen sentir que ne ñun war nañ leen mën a jàppale dinañ ñëw jàppale leen su dee intérêt jeunesse su Malicounda la mais su dee intérêt kon côté boobu mu leen si ragal maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu aussi jigéen yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon sànq ngeen tuddal leen euh, euh, euh, guddi gi aussi ak nu ñu fi ñëwee yëpp ñu ngi leen di gërëm di sant ñu ngi leen di jox suñu participation.